ok saf na neex ak sénégalais yi parce que dafa nekk loo xamante ne à chaque fois man dama lay romb wala ñuy tase fen damay gis sénégalais di ñu lay joxee bopp sa diggante ak ñoom lan la. ah dañ maa gëm rek bëgg ma wóoluma ma ma ma ma nekk jeune dëkk Sicap gëm sama bopp dem ba tey yàlla dimbali ñu may ñu xaalis ma may ñu lépp waaw yàlla teg ñu fi ba suñu woyee la ñu woy xale yi bëgg suñu taxawoon sa saaga sax xale yi bëgg xale boo xam ne xew dix ans te xewoo loolu de ah yaakaar naa de man kase ko defa gom de ci réew mi à part man Youssou Ndour ak Wally Seck point. li ma neex si moom nag dafa dëgër fit Pawlish yéen ñetti ngeen. àdduna loo gisee am ay paire ci façon bu ne yéen ci musique ñetti ngeen saf na neex Pawlish Mbaye ak Ouzin Keita yow ngeen ne dix ans ba pare ne yow ak Youssou ak. Wally rek la yàlla may loo. kilifa laa waaye bu ma boole ci catégorie mam ma. ma la ci ñoom seen seen seen départ moom moo bokk. acteur man je suis un acteur je suis un artiste comédien professionnel mais je ne suis pas un manquant waaw faut pas me limer sur les manquants daal je t'en prie. boo nee acteur nga comédien nga bu au niveau war nañ ko mën a nangu ndax joué ndoo nga ak Cheikhou Gaye Sanex du jouendoo ak como du jouendoo ak cuune ku mu gis ba jouendoo ak yow rek am na lu mu gis mais franchement pour dire vrai on peut pas dire saf na neex sans pour autant sa xel dem ci Pawlish wala Ouzin c'est ñoom ce sont des manquants des fous des conneries ñoom ay affaire conneries moom moo leen di tax ñoom ñooy dem man man niveau bi laay yéegal maa fi njëkk joué théâtre dër ci monde bi maa fi njëkk joué buur géwal man ak Saneex ak Modou Mbaye maa fi njëkk laal si Zénith ku ko weddi duggal yu youtube de maa njëkk yéeg Zénith Wally Seck man la njëkk yóbbu Zénith Paris ma def masque yéeg ci baafal yi jommal tubaab yi waaw première soirée bi Wally Seck tamit di def méridien entrée cent mille maa njëkk dugg maa njëkk créé fecc bu ñuy wax kooba yi toj ko Sénégalais yi bëgg ma xam ma ma dem ci série yi yëngal ko pare ñëw créé nekk woykat lu ma woy rek xale bëgg woy fi vulgaire wo woy fi mbaaru mbaa jël meilleur challenge TikTok 2020 pare nar a woy Saf Smok joor remix muy waaj a génn Pop Smok bi joor bi ñëpp xam nañ ni muy waaj a génn génnagul sax vidéo challenge bu ndaw laa def dëkk bi di yëngu ñëpp bëgg ko kon nag bu ma boole ci catégorie dee boole ci catégorie ay Wally Seck par exemple. way Samba. non mais non mais. dama lay door de. dëgg laa wax. man lu ma kat mu neex ñëpp kañ kon de ma boole ci quatre catégories ay Wally Seck ak yooyu. ok yow yaa ci ok ay catégorie Wally Seck loolu yow sa engagement la yow loolu sa bëgg-bëgg bopp la kenn doo si topp am na leneen lu génn fan yi passé lëmbe sax mën nañu ne chaîne musicale bi Wally Seck Sidi Diop pour yow bu dee am na yi fan la jóge man daal ku ma xam-xam Wally laa bëgg waale sama woykat waale sama xarit waale ma njëkk yóbbu tukki waale ma njëkk yóbbu Gàmbi dalal ma paradise Sénégambia foofu daanaka doomu xaram dafa dugg waaw foofu waale ma njëkk dugg dugal daal foofu man Wally Seck laay mooy woy may santiir Wally Seck rek moo mën a woy may kontaan di bég ku dul Wally Seck man faalewu ma la dégluwu ma la noo gisee noo bi non mais ça va de musique bi sant yàlla ba ku ku ma xool ci théâtre xool ma léegi nga xam ne sant naa macha allah maa ngi mos <laughs> bu dee wecc bi maa ngi mos. yaa ngi fat waaw ah, lépp moom dem ba yor suñu appartement bopp meublé ko nga xam ne ah ñu ngi sant yàlla yor suñuy téléphone yu cher ay ñaar nag <laughs> nga xam ne nag wax dëgg yàlla di di di di xeeñ parfum de classe. man mi doon laal ay déodorant chocolat yooyu. dégg naa ngay laal. non ba Bakara sax niveau bi laa gën a kii temps yi maa ngi ci ay DNP Black Pokoroban bu bees bi waaw waaw si dara Dior Sauvage léegi non niveau bi daa yëg di sol ay caleçon bu Bonavita Samba kenn nga xam ne benn douze mille la ah ñun de sant nañ daanaka. léegi kañ moom niveau bi dama wax ay saf na neex waari sekk affaire yooyu mais pas ay Pawlish affaire yooyu catégorie yëg sa bopp bi nga yëg sa bopp lan moo ñu ko mën a expliquer. non mais comment ça. saf na neex ne day ma xoolee ci Wally Seck. que lan man woykat yi gars yi ñëpp comédien yëpp maa leen gën a bëri fit man sant yàlla man. ku ma yaa ngi waaj a dem grand théâtre. non waaw ñëpp xam nañ ne saf na neex man kese maa am fitu maa ngi nar a dem grand théâtre mois d' avril bi loolu ñëpp ngi koy xaar le 21 saf na neex grand théâtre man tiituma grand théâtre feesaay beeg yooyu leen rek laa tiit lan laa fay woy waaw ndax Pawlish nee na xam na ni bu tëggee dina fees mais xamul lu muy way yow loolu maa ko fi njëkk wax waaw Pawlish moom xalaatul tëgg grand théâtre non tamit bàyyil tamit yooyu nag ñoom ku ci fit grand théâtre cinq millions la cinq millions nga njëkk joxe pare joxewaat ñett muy huit millions. location bi cinq après nga joxe trois. te cinq yi moom mat na moom. ku ci mel ni Baye Zal borom Port Chéri madame Diakhaté Abdoulaye Fatim Dieng sama PDG bi nga xam ne moo gañee maam ma marché King Fat Palace yeeg yëpp ci àddina sama ministre googu kenn du moom ñoom daal ñoo ñoo ko géré joxe nañ cinq yi de ça fait quatre li ma la bëgg a laaj naka ngay cumuler wee way bi ak jeu d'acteur bi ngay joué. gëm-gëm ak mën-mën rek jàngal rek lépp lépp te yàlla daf ma may benn don. man du ma bind single yi ma créé yëpp damay dem toog ak nii gars yi foofoowul ñu teg benn kii rek may foofoolu ba loolu ñëw ma ne leen tal leen na sa xabar gi tëggeel ma ko nii tëggeel nii ma créé samay bàq samay façon de parle dugal ko tey tey tey single bi pare suba ma ma ma créé titre bi tey. bu la neexee nga dër ba mu dëgër këcc. waaw waaw bu la neexee nga woyofal ko. Ah, waaw dër bi mu neexee yokk ko ba ci kaw. kaay ni ko ca wet ga li ko ci sa suuf aar bi di dem ñu gis saf na neex joué ak Modou Mbaye mais après Modou Mbaye dem tukki saf na neex toog sans Modou Mbaye doo dara de <laughs> ba moo ci xeewi damay laaj ba pare waaw ma ne kan moo ci xeewi kan mooy génn ba jamono ji ñu dàq ji ko faatoo ak moom barke Serigne Saliou de man saf de bu ma génnee koñ wéeri koñ te kenn new ma saf na neex yuuxoo ma wala fatawul ak man na ma bàyyi mu muuru di jàng barke sëñ Bamba nag laa waat. da ngaa jàpp ni Modou Mbaye daa ah, ah, <laughs> ah, sama xarit la de mais ah yàlla jamono ji de moom ku dox man ci ci ci mbedd. comme yenn woykat yi gars yi par exemple ñoo ngi leen leen di déglu rek mais xamuñu leen. ah fii nag kuñ fiy dégg xam nañ barke alxuraan gars yi xam nañu naajo Ibra naajo gars yi xam nañ ko kan mooy kooku man Bassum gars yi nañ ko keroog man laa ko xam Sidika xam nga laa ko ni Sidika sama xarit la Talla Jasaaka sama xarit la daal man sa ñooñu ñaar ñooñu samay xarit lañ Bassum tamit samay sama xarit la ndax ba ba ba barki démb rek woo na sama gaañ la El Hadj Kayta moom sama sama xol la tamit moom sama gaañ waaw moo tax yow bi gars yi di coow coowul musique sama way laa du sama way ku ci di génne Bambaali Seck génne yow Waly Seck génne Sidi Diop génne Tarba Mbaye génne yow la moo tax génne woo te nga ne dañ war a xoolee comme ni ñu xoolee Waly parce que maa ngi waaj ak nga nga nga ngaaka balende single boo xam ne fii mois dina génn ñoo ñoo ngi sax ci tournage clip bi presque daanaka saf na neex vs ngaaka balende nokk nañ leen ngaaka man King Baba ngaaka King Baba ñu ngi tourné leen maag moom benn single bu tudd nokk nañ leen. nokk nañ leen waaw. ok. si lañ nekk temps yi. lan moo mën a. aka man a way kooku de man de mooy sama rapport de. mu hmm. mën ñëpp ngaaka. ngaaka daal mooy Wally Seck woy bi Wally Seck mbalax maa ni ngaaka mooy Wally Seck rapport yi ñeneen ñi moom ah wax dëgg bayra la yàlla dem dem maye. saf na neex mooy roi wu taasukat yi loolu moom fépp la ndax ku ci weddi loolu kaa ñu yëg sur scène ñu te tegal ñu ay yëf nii rek nga seetaan xool. barke sëñ Tuubaa ñun lépp ñoo ngi koy gérer de ñun dañoo gëm suñu bopp yàlla may ñu succès bi sant yàlla ba bi ñu xewee bi ñu xewee ba léegi xewuñu xëy na dañuy xaw a petit yi daal waaw rek créé waat nag coow jugaat kon loolu mooy mennum saf waxal rek. waxal rek men num saf na neex li ñuy gis mu wàcc yéegaat ay ku fi wàcc de dootoo yéeg. man nangu nga nangu nga ne mës ngaa wàcc. non parce que xaw a wàcc déggoo petit xeew yi maa fi njëkk joué théâtre pare xaw a wàcc woy vulgaire yéegaat du dëgg non non ñu wax waxante dëgg vulgaire bi bruit solo yi fépp di kaas paa yi TFM coow li bari fu ma romb xale yëpp sanab ko ma xaw a wàcc ci vulgaire bi woyaat tumbaarumbaa yéeg jël meilleur challenge TikTok 2020 bañ may dedd décoré ca place du souvenir man ak PDG beeg yëpp 2 millions yooyu ñëpp a ñëwoon sit yëpp ñëwoon nañ sauf yéen. waaw woowoo ñu. ñu ku ñu woowu du ñu de faa leen fekk jël meilleur challenge jox ma 2 millions ma xaw a wàcc ñëpp gi gis temps yi sama corona bi la woon may waaj a génnee lan pop smoke bi joor remix saf smoke day génn. Perez xaf xaaf na ak ngaa ka balen da bi génn